mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñoo ngi fi ci Paxa Sow dëkku diini dëkku lislaam bis bu tedd bi xam ne fëskee nañ ko def kan nañ ko def le 28 le 28 janvier tabarakallahu 2023 képp koy wax sirwaan laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah bis baa ngi nii gis jumaa ju taaru ji tabarakallahu yal na ràpp ak jàmm mbokk liggéey bu rafet bi nga xam ne askanu Paxa def nañ ko wane ne ne diine ak lislaam mag ñu baax ñi nga xam ne liñ fi taxawoon day askan wi taxaw nañ ko ndax gi ngeen jumaa ju toll nii nga xamee tabaarakallaahu liggéey nañ ko ci dëkk bu tedd bii di dëkku Paxa Sow loolu waral tam incha allah le vingt huit euh, tabaarakallaahu ñu fës yéene nag ca le vingt sept ba ubbi jumaa ju tedd ji nga xam ne mooy jumaay Paxa Sow gis ngeen tabaarakallaahu jumaa ji yal na yàlla seral ko mag ñi tëdd ci suuf paxasaw ak mboolem ñi nga xamee tabarakallahu ñoo tëdd ci réew mi ak bitim réew yal yàlla xare leen aljana liggéey bu rafet boo xam ne képp koo xam ne jullit nga ak foo mënti nekk ci réew mi ak bitim réew yaakaar naa ne sa sedd na lii la mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo sancoon dëkk bi sance ko ci alquranul karim wax yàlla subhanahu wa taala sance ko ci diini sance ko ci lislaam tey buñ del siwaatoon jamono seen xol dina sedd looloo war a tal tabarakallahu ñu faskee na koo julli nag ajjuma le 27 bu ñu bësët nag ñu jàng alquran karim wax ko yàlla subhanahu wa taala ci njiital mboolem kilifa yi nga xamee tabarakallahu daañ fa ci dëkk bi ànd ko al imam sëñ ibrahima mbeng ak tabar chef de nga xamee suñu bàyyi dem ba sow waaye jël kàddoom jox ko tabarkal serigne Modou Fall saw serigne Modou mun ñu la bañ jox fi kàddu ñi ngi lay nuyu di la siar bis bi jumaa ji yow lan la def ci yow. waaw jumaa ji de gannaaw ba nu sant yalla julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ah di am contante rek ak mbekté ci liggéey bi waaye di sant it njaboot yi ko taxaw yépp mu njabootu paxa ah, na ndaw ñi wax dëgg yàlla ñoom gàcce ngalaama ndax ànd nañu booloo nekk boo nekk benn. ah lépp lu kenn wax rek ca la ñëpp sukkandiku ah njaboot maanaam mbooloo moom bu ñu àndandoo nekk benn rek ah lu ñu song daañu ko daaneel te loolu lañu def kon di ñaan yàlla suñu borom rek jumaa ji lépp lu fi waay jaamu yàlla na yàlla sunu borom nangu ko lépp lu fi ñaan lu waay ñaan yàlla na yàlla suñu borom nangu ko di sant itam wax dëgg yàlla imaam Ibrahima Mbeng ak borom dëkk bi di Serigne Demba Sow waaye ak njabootu Paxa Sow gépp rek bàyyiwuñu kenn képp ko xam ne si njabootu pax nga rek ak foo mën a nekk rek wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax baax ndax liggéey bi ñëpp jàpp nañ ci góor ak jigéen ndaw ak mag ba mu agsi fii ak nit ñi nga xam ne si it dañuy def ci yàlla tax kon ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp waaye di bal àq ñëpp di balu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngi eh, jàkk ji rek noo ex fi xam ne mooy daara ji nga

maaleykum salaam wa rahmatulah. mën nañu xam sa tur. Dame Sow. Dame Sow euh, gis nañ ni bis bu tedd bi nga xam ne ñu ngi ko jublu muy le vingt huit le vingt sept la vingt huit te ku ne xam ne paxa ku ko tudd tudd alquran karim wax yàlla subhanahu wa taala loolu taxoon nga may ñu ci benn xale mu jàngal nu alquran karim wax subhanahu wa taala ñu ñëw soog a ñëw ci laaj. bismillah nu mu tudd. Babacar Sow. Babacar الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوقوس غسرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب حتلت وإذا الصحف نزلت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم النفس ما أقدرت ولا أغزم بالحنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لحول رسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولحد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبوا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تزاؤون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم Euh, tabarakallahu saas ñu ngi lay nuyu di la siyaara bu baax euh, Serigne Mbaye Sall mënoo bañ a wax de parce que lii dafa daw yaram euh, njàng mi lan la def ci yow ginnaaw bi nga nuyoo. xol sedd na. Mhm. tabarakallahu yaram daw na xol sedd na. Mhm. te itam ñu ngi jaajëfal ustaad daam bu baax. Mhm. te itam am na farlu bu baax ci xale yi. mu ngi leen teg ci yoonu siraatal mustaqim. mu ngi leen jàngal alxuraan bu jaar yoon fa tabarakallahu. fa tabarakallahu Eh, loolu daal lañ ci mën a jotali ci kàddu mm. ñun ñëpp kontaan nañ oustaz mën nañu xam xale bi ñaata at la am xale bi exact mën na toll ci ay 12 ans 13 ans yooyu mm-hmm. mm. euh, daara ji euh, ndax am na xale yoo xam ñu ngi fii wàcc wala yoo xam sori na ci alquran waaw am na xale yoo nga xam ne ñu ngi fiy wàcc mm-hmm. ba daaw mm-hmm. ci suñu année bee am na fi xale boo nga xam ne jeexaloon na alquran ci kàttanu yàlla ya hmm. rek ndax bu dee nit rek mënul jàng alquran hmm. yàlla ciy dugal loxaam hmm. jox ko kàttan ba mën a jeexal alquran man koo tari xale boobu nag yàllaa ko dimbali dimbalu yàlla la am mën xam turam Mor la du njàmbaarteg oustaz du kenen, yàlla mooy bëgg te mooy dogal ne xale bi dina mokkal alquran moo tax xale boobu daaw la tari fii alquran ci kàttanu yàlla rek lañ koy delloo euh, ci wàllu njàngale mi ba amu leen benn jafe-jafe ah jafe-jafe yi ñu am kay mooy jafe-jafe matériel ndax comme moom daaree alquran moom la waroon a jox gëdd bi gën a mag fexe ba élèves yi jàng duñu am benn jafe-jafe mm-hmm. ndax comme moom alquran mm-hmm. ci langue arab la wàcc mm-hmm. kon nag ki jàng arab waroon koo jox gëdd ba lu mu soxla ci école am mu mën koo am maanaam moom la arab yi moom lañ leen njukkale arab yi ci ci wàllu njàngale ci réew mi ak fu dul réew mi sax waaw kon kiy jàng alquran mm-hmm. waron na mën am jumtu kay yi muy jàng yépp ba nga xam ne du manki dara nga xam ne njàngam dina mëna a tege ci mm-hmm. yoon wu jub ba mu mën caa am réussite man nañu xam nombre xale yi fi jàng à peu près à peu près 100 et quelque ci benn classe wala déedéet mm-hmm. fi mustawa al mutaaddi mën nañu dem ci yeneen classe yi ñu xool incha la ci daara yi nga xam ne comme li nga xamante mais bi ñu soxna lañ fekk naka la demee noonu waa Assayida. Mm-hmm. Soxna Sall. Mm-hmm. moom moo ñuy jàppale ci côté mm-hmm. xale yi. ndax comme ay mustawa yoo nga la. loolu mooy lan ci wolof ndax ay déggul arab. waaw mooy ay français lañu gën a xam. suñu ne école bi. mustawa yi fi nekk. mooy classe yi fi nekk. CI2 e ba loolu moom moo fi nekk ci ay classe yi nag see yi. ak CP. maanaam ñi ñoo jëkk ñoo ñoo jëkk a mm-hmm. ñoo ci mm-hmm. Mm-hmm. kon tabaarakallaahu gis ngeen ko. tey classe bi ñu ngi fi nga xam ne moo di Paxa Sow pour wane alquranu karim wax yàlla subhaanahu wa taala ñuy classe yi bii ban classe la mom. waaw fii ñaari classe fi nekk mooy. mutawasitul awal ak mutawasitu saani. moom la wax ci français. CM1 ak CM2. ñoom ñooy jàngee fii. Mhm. Mhm. ñoom jàngi fii dafa mel ni moom ñii mel na ne ñoom ñu ngi bind de. waaw mhm. xam ngeen ne xale yi boo leen gisee xam ne ñu ngi góorgóorlu di jàng boole jàng ak bind kon oustaz ñii dañu boole jàng ak bind. waaw jàng moom loolu la. jàng ak bind ñooy ànd. ndax it boo mënee jàng te mënoo bind it. dana am foo xam ne du sat ko lan yo parents yi pour tago ko. waaw parents yi pour tago len rek. mooy ñu fexé ba xalé bi. bu tolo ci jang ñu yóbbu ko mu dem jang ndax xam nga yalla hmm. mag la. dafa wax. dafa wax ci alquran ni waqifuhum. Hmm. innahum mas'ulun hmm. ndax ci yowmal qiyam bu ñu démé gaay dañuy gis benn groupe. ñu mel na ñu am fuñ jëm ñu ne gars yi ñooñu waqifuhum yàlla ni malaaka yi waqifuhum stopé leen ñooñu ñu taxaw ndax maskuuloon dañ leen di laaj loolu nag man sama déggin aaya bi ku ci nekk daf ci am wàll kon parent bi wàllam ci aaya bi mu am fu mu dox jëm yowmal qiyaam ñu ne boole ko ci ñi ñuy waxal waqifuhum nañ taxaw parent boobu mooy parent bi nga xam ne hmm. doomam toll na ci jàng hmm. te jàngul hmm. te jàngalu ko dugalu ko école mu jàng bu demee yow na xiyaam lu wax sama parent moom ma dugalul woon école ma dem jàngi yàlla ne ana parent ba boole ko ca waxi foofu innawu masu na taxaw parce que dañ koy laaj parce que doomam ji responsable yi ñu waroon a jël ci moom jëlu ko pour jëlu pour dugal ko ci école ba jëlu ko nag loolu rek la ñuy wax parent yi salaamaaleykum kon euh, ba tey imaam yaakaar naa ne dégg nga kàddu yu rafet sëñ Mbaye sàll oustaz daal yaakaar naa ko mat a gërëm la. waaw ah, fa moom la la waxoon rek laay waxaat. Mhm. ñun ñëpp amee na ko njukkal. Mhm. di ko gërëm di ko tan fa tabarakallah mhm. parce que itam xale yi lii mu def ci seen bopp yi. fa tabarakallah ci wàllu alxuraan. ci wàllu adis ak mbooleem fànni xam-xam yi jàng. fi mu toll nii chaque jour dana jàng juróom-ñaari matière ci alxuraan ci hadis ak yëpp danañ ko jàng par que loolu moo tax ñu ñu am njew njew ci kattanu suñu borom. kon boog fa tabarakallahu jërëjëf oustaz daal. nit yi mbokk taalibi yi képp koy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah ah dëkku diine bi Paxa Sow woote na le 28 ah 120 2023 le 27 bi nekk lañ def xadratul juma bu mag ndax dëkku diine dëkku Cheikh Ahmad Tidiane la waaye yéen ñi nga xam tabarakallahu ab gaaw leen nga abonné ci Mbadiar TV bis ba guddi ga lépp da ngeen ko am ci seen portable téléphone kon nag gaaw leen abonné Mbadiar TV da ngeen bës kolos bi boobaa da ngeen ko ànd ak direct YouTube bi ak seen mbokkum taalibe Mbaye Ndiaye bu Mbadiar kon nag képp kuy wax sadu an laa ilaha illallah wa asadu an rasulullah jox dox daje paxasaw le 28 janvier 2023